monsieur le ministre euh, jërëjëf ci dalal bi ñu dalal di la nuyu bu baax a baax. man kay maa lay amal ngërëm maa la amee yow ak ñi nga àndal ñëw ci bésu julli bi mm-hmm. di ma dalal ci sa télévision yow. Mm-hmm. muy Sénégal 7. Mm-hmm. Euh, di ñaan yàlla nag. ñu fekkee déwén. amiin bu naree ñaaw nan la mel ni ren. di leen di baalu àq. di leen baal àq yéen ak waa Sénégal yëpp. ñaan yàlla mu bay fii Sénégal yi ba ca kanam te dàq ay ak fitna ak mm-hmm. seytaane. Mm-hmm. en tout cas comme ñu ngi ci julli euh, question bi moo xam naa doonoo ko di sax mais foofu lañ koy dooree <laughs> waaye gis nañ julli gi chaque année Sénégal c'est un peu particulier ak ñaari fête euh, bon ban santiment moo lay animé rek en tant que jullit en tant que sénégalais en tant que leader d'opinion. waaw li gënoon moom mooy ñëpp ànd julli hmm. waaye na ñëpp julli hmm. ba noppi def farata hmm. euh, te loolu dina am ndax bu fekkee ne am ñu julli suba am ñu julli gannaaw suba julli am na. Mm-hmm. bu fekkee ne am na ñu rendi suba am ñu ren di gannaaw suba ah liñ lañ laaj ci bés bi muy farata def nañ ko mm-hmm. kon ñuy rafetlu loolu waaye nag ci dëgg-dëgg gënoon na mm-hmm. te loolu gënoon na lu neex itam ku nekk ànd julli ca benn bés benn bés defe naa ne mooy mooy l'essentiel alors premier ministre euh, ñu dugg nag ci waxtaan wi euh, defe naa ne ginnaaw baalu àq geeg baalante àq bi euh, réew bu Sénégal dafa am nu muy doxee rawatina ci wàllu politique surtout mais on va parler d'une manière générale on a vu ce qui s'est passé dëkk bi dem ba nga xamante ne ni la situation est très tendue en tant que leader en tant que itam ku am ay ndombal tànk ci réew mi ñu la doon wax nga jàngatal ñu. la situation actuelle ban jàngat nga ciy def. waaw li ma ci jiital mooy bettuma te bu ma waxee bettuma dafa di loo xam ne waxoon naa ni mi ngi ci yoon mi ngi ñëw ndax bu fekkee ne yaa ngi topp loo xam ne li maa ngi koy bind di ko duggal ci journaux yi am na lu ma bindoon 10 novembre 2020 mm-hmm. waxoon ca ne euh, Sénégal ñu ngi jëm foo xam ne ndox newu fa. te jeunesse bi dina fippu lu metti dina fi xew li indi woon sax ma euh, bindoon loolu ca jamono moo di ne dama gis ne Sénégal lépp lu fi xew lépp lu fi am jàngat biñ ci jàngat mooy baaboog ñi ñu jiite ñi ñu jiite liñ ciy jàpp rek mooy war nañu politique jéem ko dindi te ca booba euh, xel ma noon na jàpp ne tension yaa ngi ñëw waaye liñ ci déggoon mooy yaatal nañu euh, conseil économique et social ba dénk ko benn opposant dugal ay opposant ay tuuti tuuti opposant ci biir gouvernement mm-hmm. te bi may benn boobu bi may bind boobu article dama ci defoon ne loolu du solution mm. solution bi dëgg-dëgg mooy nga xalaat lan moo war a mën a indi tension te li war a mën indi tension ma ko tegoon ci ñett benn bi mooy euh, koom-koomu Sénégal doxu tegul ci yoon te depuis booba depuis deux mille vingt ak sax lu ko xaw a jiitu tuuti mu ngi gën di metti mu ngi gën di metti ci askan ndax yoon la nga mën a xalaat tey ne Sonacos li mu jënd ci gerte matul fanweeri junney ton te ngay dégg ñoom ñuy naan un million un million sept cent mille génn na ci suufu Sénégal. Ah, loolu la ñu jaaxal waaye loolu. bu ma ko waxee rek dama bëgg a firndaal lii nga xam ne moo am ndax am na ci gerte am na ci dugub am na ci mboq am na ci feneen am na ci activité général ndax gisuma ci biir Sénégal secteur boo xam ne mën nañu jàpp ne neex na wul hmm. waaye loolu. mooy li indi li ñuy dund li ñu mujjee dund fe te jeexul mm-hmm. ñaareel ba dañu gisul itam ndegem loo doxal rek jiital ci politique dañu gisul loo xam ne mën nañ ko fay daal ba jàpp lii kat mën na doon bunt ci jafe-jafe yi Sénégal yi di dund mm-hmm. boo boolee ñaar ñooñu teg ci itam loo xam ne lii injustice la kumba am ndey kumba amul ndey bàcc am baay bàcc amul baay yëfi del di tàkk hmm. noonu ma ko waxee woon novembre deux mille vingt noonu la amee janvier février mars deux mille vingt et un ñu desatiti jàpp ne boo gën a dooleel euh, tàkk der yi li yëpp du amati déet da ngay xalaat lan moo indi lan ba nga mën a ba sa mel ba sa xel mën a indi li li liy saafara mm-hmm. euh, li li li li koy indi waaye loolu def nañ ko ba président saño toog ne lii fi amoon dootu fi amati kenn duma bett dégg naa leen teg ci waaye delsi na te nag ah baadu amaat ñaanuma ko yàlla mm-hmm. waaye dina amaat dina amaat ndax fin décembre bi ñu toogee ci sama conférence de presse. Mhm. dama ne li amoon janvier février mars deux mille vingt et dina amaat te mi ngi amaat avril mai juin lu tax ma wax loolu. ndax ca booba maa ngi xalaat ca lay lépp gën a ñàkk ci Sénégal ci wàllum dund ba bi nag njëg yi gën a jóg gën a yëkkati te looloo am ndax boo toogee ba ci biir Dakar. Euh, dugub di jar huit cent francs mille francs le kilo gerte kazalika y a c'est compliqué. kon métti na ci dëkku kaw yi waaye métti na itam ci dëkku taax yi ndax. mais président man j'ai envie de vous demander déjà euh, à qui la faute à cette situation et ensuite tamit euh, bu fekkente ne dafay amaat tamit ndax ñun kon dañoo yegg ci foo xamante ne ni mënatuñoo deltu ginnaaw. Euh, consommateur munoo ko laaj muy xiif ak i or mhm. da koy bàyyi mu war a jënd mu war a jënd mhm. jëndee ko ci li nekk ci poosam mhm. kon léegi bu ñu la dénkee réew li ñuy xaar ci yow mooy boo toogee sa juróom at baa sa juróom ñaari at baa sa fukki at ak ñaar quelle que soit l'appellation boo toogee ba war a dem nga sañ wax ne ah bi ngeen may dénk réew mi gënoon ngeen sonn lii tey kat fa tabar fa kàlla réew mi gën na naat tuuti waxuñu la nag nga jëlee réew ca sous développement mm. yóbbu ko ca mu mu mu raw États-Unis ak <laughs> Japon waaye nit yi dund taneef mm-hmm. loolu lañuy laaj jiitu réew mm-hmm. waaye bu fekkee ne jiital nga politique politicienne xëy na yow ak ñi nga àndal du ñàkk ñu gis ci ñoom yokkute bu mat sëkk noppi nag nga war a toogaat ne bàyyi leen ma toogaat hmm. des na des na ndax liggéeyuloo ba ba man mën a wone loo xam ne di di dina doy ci ci ci ci xelu ñu la na ñu wàññi politik politicienne ci suñu biir réew na ñu gën a fay daal li nga xam ne lii moo mën a doon njëriñ ca askan wa te njëriñ ci askan na mi ngi door ci ñu bañ a xiif ah, suñu programme xëy na dinañ ci dellu si bu ci kanamee waaye loolu la ñu jiital loolu ngeen jiital moo tax euh, damay jéem a génn tuuti pour mën a dugg ci actualité bi soog a ñëw nag ci acte euh, ci actualité bi déjà monsieur le ministre euh, ñu ngi wax ne ci yaa ngi ci opposition bi te loolu nga ñu dëggal question bi lan la opposition bi am lu muy mëne fan yii yëpp déjà am na ci li mu def mooy dem ci CPI ngir kalaame fa nguuru Sénégal ànd nga ceen dëkk mais gis nga loolu munuma ci bañ a ànd xam nga lu tax lu tax amul réew boo xam ne te man da damay jaaxle sax ñu leen di dégg ñu naan non CPI xaju fii mënuñ sa ah, dem bu ngeen demee day day non mais mais xam nga problème bi du CPI lan mooy problème bi. problème bi mooy février mars mhm. fukki bakken ak juróom benn rot nañu. Mhm. ana enquête. ana suspect waaye gisuñu dara. mais looloo loo problème bi foofu la ne ndax yoon la ci manifestation ñu am fukki bakken ak juróom benn yu rot. Mhm. ñaari at jàll ñaari at ak juróom benn waaye wala mu matagu ko xëy na wala waaye léeg-léegi mu mën ko romb te déggaguloo suspect hmm. déggaguloo ku ñu inculpé déggaguloo ku ñu jugé waxuma condamné ndax dafa am lu ma dégg mu jóge ci suñu benn ministre hmm. man dama waaru ci yàlla hmm. ndax dem ba tugal yow nga xam droit ndax loolu liggéeyam. Mhm. di fa wax wax yoo xam ne musiba la man man dama waaru keroog. ndax boo toogee ne. Mhm. force de l'ordre yi force défense yi dañu nekkoon ci légitime défense. Ah, loolu de la ko mais wax nga musiba ndax nangu nga ne ñoom ñoo rey. noonu nga ko interprété da ne rey nañu waaye ñu ngi ci légitime défense te enquête waxagu ko enquête waneegu ko. Mhm. loolu di benn. ñaareel bi légitime défense bu fekkee ne ci légitime défense la ñu tiire ba xale yi daanu waaye loolu kan moo ko war a wax hmm. ndax ministre maanaam exécutif moo koy wax walla yoon a koy wax hmm. mais da ngay bàyyi yoon def liggéeyam ndax bañu ma ko xëy na loolu am mën na ne waaye wax wax bu noonu mel waxu tribunal la maanaam am na ku bakkanam rot enquête nañu am nañu ñu jàpp jàppa jàpp ne xëy na ci ñoom la mën a jóge nga jugé lañ boo leen dégloo ba noppi ba ñu ne ah man de dëgg la def naa ko waaye ci nii na ma fekkee mm-hmm. maa ngi wéet nit yi bari wër ma jëm si ci man yore ay xeer ak ay brique ma daal di génne sama arme loolu mën nga jàpp ne légitime défense la waaye loolu yoon a koy indi mhm. kon bu fekkee ne ñu ngi ci dëkk bu ni mel yoon waxagul dara te waxoon naa fi sa sa sa sa benn naataango ma ne mhm. ko ah yoon war na am lu mu wax ci lii xew ci février mars ndax nag day xaw a nuroog bakken mën na rot waaye yéen daal na ngeen def li ngeen di def des leen ca mhm. moom la tubaab bi di wax impunité mhm. impunité nag bu mu amee ci réew bu amee ci réew te justice jógul waxul li mu war a wax dogalul li mu war a dogal da ngay bàyyi sa justice nationale dem ci justice internationale loolu koo mën a bañal nangul nañ leen ko impunité bu bëree ci réew lan la mën a jural réew lu ma ne impunité bu demee ba bëri ci réew lan la mën a jural réew benn état de droit nekkatu fa ñaar justice bi kenn kenn du ko gëmati ndax justice dëgg la am na ñu ci ne loolu mën naa ko seede am na ci ay magistrat de très haut niveau de très grande qualité yoo xam ne mënu lan def def loo lu ñu bëggul waaye am na ci itam yoo xam ne dañuy topp ndigal te nag bu lu nii mel xewee justice yëpp lu ñuy tuumaal daal dina ñii kat jaruñu dara te loolu bu amutee ci ci réew mm-hmm. dina xaw a doy waat ndax justice bu amatulee yow ci sa bopp yow mi mm-hmm. doomu aadama yaa yaa yaa koy doxal sa bopp mm-hmm. nga ne bon soxlawul ma dem fii voilà mais mais mais boo defee comparaison entre bi ngay nekk ci bopp gouvernement bi ak léegi